acte di nga ko def mu am njariñ waaye waxtu wi wi ko defee ak circonstance yi nga ko defee mooy yokk importance bi weeru koor day mel ni ni koy faral di waxee moins promotion la boo xamante ni def lu baax baax na ci weer yëpp mais def ko ci weeru koor ci la gëne mais daaneel di wax rek ni monde bi fi mu nekk nii le mal du monde ndax solidarité man contraire am li ma ko jàppee mooy différence fi mu nekk nii ñàkk a faale coono kaneen ñàkk a yittewoo jafe-jafey kaneen mooy jàngoro ji gën a doy waar ci suñ monde actuel damay wax ni la mal du siècle c'est différence mooy ni yow boo lekkee ba suur lijjanteetoo ku kuy xiif boo soloo lijjantewootoo kuy rafle boo amee foo dëkk lijjantewoo too kuy tumuraanke ci mbedd mi boo amee loo sol lijjantee too kuy rafle waaye ñoom ñii nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ndax dafa am bis mu rey am xar xar moom ba mu ko rey di ko séddale di ko séddale ba mu des bopp bi ak yeeli mu ni Faatuma jëlal bopp bi ak yeeli nga yóbbu ko ci kër gi mu ne ko waaw sama sama baay lu tee nga waxoon ma ko nga nga waxoon ñu ñu jël ci xar mi lu am solo togg ko mu ne ko fàtte naa ko ba ma ko fàttiloon ma def ko am na lu ko ñoroon lu may ci ñañ ñëw doole ak ñam lu waroon a jox kon yéen su ngeen yëkkatee wet gi dama sonn sax ne kon sax naa ko gën a delloo bu baax a baax waaye ne leen wóor na leen daal yoon wi ngeen jaar yoonu yàlla la bu ma sëkk bari waa na fii ñoo xëy ñu ngi yëkkati ay société yu bari di ko doxal te doxal ga amut njariñ ci ñam war a àgg ci ñoom ndax euh, euh, euh, lan cay yëkkati di ko def ñu bari bari xamuñu ko te doo dox ba géeg ko te dañuy wax lu yaatoo yaatoo yaatu loolu lu lu jaaxal bindeef yi la kon yéen ñi nga xam ne yéen a yëkkati paar bii dugal ci nit ñi am seen yërmaale ci ñoom ñoom de mun ñu leen a fay waaye nag su borom moom am na pay te ku ko nekkal dana la nekkal lool leer na ma leeral yàlla ni ñi nga xëy nii seen kartan matiwu ko te rus na noo tàllal doomu aadama te am nan ay bokk wallaahi am na ñu bokk yoo xay bu ñu leen joxoon ñeen nga tiit ah waaye nag loolu lépp suñu borom a ko dogale nii ndax yàlla ci boppam nag sañ-sañam bi dafa rëy te lu ko soob mu def ko kon lépp moom lii nag day loo xam ne ñoo ci juróom benneelu at bi ñu ànd kook suñu président Alaaji Mbay Sall bi nga xam ne mooy ci jox ndigal ak le comité national ànd kook femme volontaire yi maam awaloo ànd kook nag action sociale ànd ak sociale bi nag li ko waral mooy day moom moo nu gën a xam ñi ko yelloo moo tax ñu jox ko ne ko yaa koo xam jëfe loolu noonu la ñuy doxee ah, jëf ji nag euh, rëy na rëyut xam nga tax rëy na mooy am nañ yéene xet mi doomu aadama te yàlla tax ndax ne slogan Croix-Rouge xam ngeen ko c' est aider nous à union des cœurs dans une solidarité allisante dimbale nit te yàlla tax waaye dimbale ma ngir mu dimbale askan wi sonn mooy suñu slogan ci loolu la ñu nekk ay ati ati at def nañ ko ci daara yi def nañ ko ci prison yi def nañ ko ci ñi feebar def nañ ko ci quartier yi def nañ ko ci ñi nga xam ne soxla nañ ko ci xaarim jaay jaaral ko ci moom at mu jot ñu koy def enveloppe bi nag at mu jot di ko yokk mu jot ba egg benn niveau bi ay millions waaw ah, li tax ñu koy def nag mooy suñu ne suba la Korité wala ginnaaw suba la Korité koo xamante ne bii ah, ñu ne pourquoi pas ñu ko benn enveloppe boo xam ne dina ko permettre dépense ko ko ndax di ko jox mu togg ko lekk ko benn bis suba du ko amaat waaye soo ko defee noonu rek wàcc na ko loolu dèjà muuti leneen looloo ko nii di ñaan suñu borom di ko gën a man ah, ànd ko suñu partenaire waaye di wax ne ñi ko fi mu jógee nag du lu fenn lu su nun le comité départemental te Baye Mbaye Sall jiite ko ci ma ci def femmes volontaires def ci seen loxo volontaires yi fi ñëw daaw ba ci at yeey génn ñoom ñëpp ku ci nekk sas tuut la man ak la nga nga def ko ci te yàlla tax waaye ah, waaye jëf ji leen ci dugal muy xaw a politique soxla te ñi jox tey noonu bàyyi mbéy ak nii xamu ci kenn man moom su ko bàyyi mbéy xamu ne woon ma xaale wu ma xale yi noonu li waral loolu nag mooy nun dañuy joxe te yàlla tax te duñ xool ki ñuy jox ak kan la ak suñu mbokk la noonu la ñuy doxee neen nañ ko defee ci askan yëpp def nañ ko defay ay toilettes jox leen may leen ay bourse xaalim Ndiaye mii moo ko tànnal chaque weer ku ci nekk am juróom-ñetti junni jox leen ay kit d'hygiène lépp luy setal jox leen ay matériel ci daara yi ak ci école yi ak ci bérébu liggéeyukaay yi ak ci hôpitaux yi lii Croissant koy def am nañ fas yéene defaat yeneen activités yoo xam ni d'ici Korité su passé incha allah rabbi dinañ def yeneen activités yoo xam ne ko séq ak yeneen département yi ak Croix-Rouge sénégalaise lépp nag jëm si doomu aadama xeet lu ko te yàlla tax ci loolu ni xëy ci la ñuy gont ci la ñuy fanaan di sant ak yàlla bu baax di wax na daal liñ def nii def ñu rafet na parce que ñoom dañ ñëw ci service bi nga xam ne yàlla moom la dénk ñi yoon ndimbal ñu ñëw ànd kook ñoom ñu leen di tànnal nit nag mën naa joxe ak la ak ak leneen nu mu mën a joxe mais ñoom ni koy defee dañu xool ñëw service bi nga xamante ne moo fi nekkal état nga xamante ne veuve yi fi lañ ne orphelin yi fi lañ ne personne handicapée fi lañ ne ñu ñëw ne tànnal ñu ñen ñoo ko gën a yow boo xoolee am nañu ëpp junniy nit yoo xam ne ku ci ne yooyu nga dimbal te liggéey bi ñu dañ ko def ci sutura kon ci ñooñu ci la ñuy tànn ñoo xam ne ñoo ko gën a yeyoo lañ bàyyi sax ba moytu ñoo koy gën a ëpp mais tànn mënta ñàkk mais dañu rafetlu ni ñu ko defee parce que ñoom laa gis suñu département am nga gis ñu am programme dal na lañ action sociale ñu tànn mënoon nañ ko defal seen bopp ñu bari ñu ngi def ay activité chaque jour ci koor gi yéen yéen ñu koy couvrir gis ngeen fu ne ñu ngi fay dem di tànn ay nit ak yu demee mais kenn bàyyi ci xel na xaaral ma def action jox ko lii te képp ku néew doole ñun li ñu liggéey ci sutura la nit day ñëw wax la boppam yow yaay mën a xam kii noo ko war a mën a dimbalee mooy dama wax léegi rek te bi loolu la bëggoon koy dimbali dimbali ko te yàlla tax bu ci séntu dara li ñu joxe nii sax bëgguñu ko woon lii nii mais yéen na ngeen cee bokk e, xam lan mooy Croix-Rouge moo tax mais bëgguñu fésal sax lan lañ fi joxe mais daal ñu ngi sant yàlla di leen ñaan tamit ñi nga xam ne ñu ngi gis nañ jàpp ne ni ko Croix-Rouge defe nañu defe noonu maanaam ñëw ci service bi nga xam ne jàpp nañ ne kat kii moom la fi yàlla te parce que état jàmbar la état li muy def wax dëgg yàlla li mu man mu ngi koy def mu ngi joxe ay bourse carte d'égalité des chances couverture maladie universelle ak yeneen programme yu bari de philosophie jamono jii rek ñu ngi wàcc benn transfert monétaire bu toll ci quatre-vingt mille président war ko lancer mais kon état bu ngi def loolu yeneen personne bonne volonté yi nañ def ni moom nañ def ni waa croix di def ñëw ci service jàpp jàppale ñu ndax lépp ñun mën nañu ko waaw bu ñu fi nekkee rek askan wi lañu fi nekkee lépp génnul département kon ñu ngi lance un appel ñeneen ñi def ay activité ci koor gi ñuy bàyyi xel action sociale parce que bérébu sutura la nit ñëw wax la boppam nit nag dina solo ba jekk romb la jàpp ne kii mën na dara fekk na moo gën a yooyoo sax ki yalwaan mais ñun ñu xamuñu ko waaw kon daal ñu ngi leen sant di leen ñaanal ñoom ñëpp buñ ci santee Baye mbay rek ak équipe bi mu àndal sant nañu ci des ñi mm. toll na tey ci ñu jàppale vingt cinq personnes te ñu ngi leen jàppale ci xaalis surtout ma nga xamante ne Korité gaa ngi koo ci jox moom moo xam bëgg-bëgg mooy dem xam la muy jënd waaw mais ñu ni jàpp nañu ndimbal moom da ngay joxe ceeb wala tàndarma wala sukar rek mais tamit loolu baax na mais tamit lii ñu def nii tamit moom dafa gën a baax rek